ayuha al ixwa wa ayatuha al axawaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye fay leen ma nuyoo dégguma dara de bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu ñépp nuyu lislaam santaat yàlla ci xéewal gi mu mayeeti xëy na yomb gi moo tax nu réere dayo bi nuyoo boobu nag nu jiital ci njabootu Cheikh Seydil Hadj Malick Sy te yàlla dogal ki nekk ci bopp bi tey di pilote bi di Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Sy ibnu Seydi Aboubacar Sy di xalif général bi ak rakkam yu baax yi tabaarakallahu ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di nuyu mbooleem couche peuple Sénégal ñi fi rot si ak ñi ñëwul te ñaan ak ñi ñëwul te ñëw am na ñu ñëwul te ñaan am na ñu ñëwul te ñëw am na ñu ñëwee loxo fa tabaarakallaahu gàmm gi mënoon nañu ñaan mat na sëkk ci kuy dégg wax ji ki ma dàq wax wax na ko wax ji ki ko moom wax na ko maa ngi nuyu famille yu njabootu maam Moussa Ale njabootu maam Daw Góor njabootu maam Ousmane Samb Demba Waar dañ ko ni loo bokk ak Lat Joor mu ni boobee ba léegi loo bokk ak Lat Joor mu ne boobee ba léegi su ma paree ci nuyoo boobu ma yëkk ci nuyoo bu sàll boo xam ni nuyoo la xaasatan nuyu ko njabootu maam alxaaji ahmad mbay mawdo teg ko ci loxo sidi aboubacar mbay xalifa mbay mu jàllaleel ñu ko ci suñu mbokk suñu xarit suñu mag ceerno alxaaji mansour mbay lii kum doyul dara doyu la ci waawan li fi ne ci ñu mën a yéwal na lii te sant ñu si ngeen jël ko honoré ma ko xaritoo gi la ak mbokkoo gi ak jaxasoo gi ngeen xam ne maa ko moom ngeen jox ma ko looloo tax ma saisir sama bopp waaye dëgg-dëgg man nekk ko fi tey mboolem ñi fi teew ñépp xam nañ ne am naa ngànt waaw sama tànk feera ci ne dañ ko opéré wàññiwul dara pour ma wax leen ko parce que dafa am ku ma téléphoné ci sama kër ni ma dégg naa ne da nga accidenté ma ni ko déedéet mu ni ma lu la jot nag ma ni ko man daal dama doon sangu glissé am fracture ca Italie ci dëkk bu ñuy wax Catania mu ni ma mën daal ni ñu ma ko nettalee metti na sama xol ma ne ko interprétation bu ne ci xolu boroom la dépendre man dara jotuma maa ngi sant yàlla yàlla ragalul kenn ba di ko gannaaw waxuma tiwaawan waaye madinatul munawwara ga rasulullahi tëdd su ma fa làqatu woon yàlla bëgg a def lii ci man du tàggu njool màkka kon du tàggu alhaji mali man maa di koo xam ne faatu mën na maa dab ma faatu waaye ragaluma dara tus ragaluma ko maa fi ñëwaat ci li ngeen daan woote ma waxaat la ma daan wax dikkuma fi pour wax si lu bees dikkuma fi pour wax si lu kenn xamul mais attention dikkuma fi pour wax lu kenn mun a weddi na ci ñëpp bàyyi xel maa ngi nuyu kilifa yi ci barab bi di beral nuyu Seydi Aboubacar bii fi jógee ibnu Cheikh Alxaaji Mansour ñun suñu cira yàlla ñu ko séddee ñu nangu cir bi mu nangu ko ay nit nag bu ñu àndee ba ñëppi jëppi leen ca ànd ba waratuñoo jëppante ay nit bu ñu àndee ba ñëpp jëppi leen ca ànd ba buñ muusee waratuñuy jëppante ñoom dama leen di nettali nettali bu gàtt te daal di dugg ci gàmm gi wax ji du gudd bi yàlla dogalee ma am fracture ñu opéré sama tànk dañoo dem ba programme yi ñu am ci Sénégal jot te mënuñoo ñibbi si parce que maa leen fa téye Seydi Aboubacar dikk fekk ma ci hôpital bi ni ma ah gàmmu soxna na fi ñang ci géejawaay de la trente la te yaa ko yor jot na de daal di ne pat parce que dootu ci dugal gémmiñam ndax joxoon na ma ko ba noppi te joxe dara jëlaat ko moog wàccu lekkaat ko yam rasulullah yi ko wax al aidu fi hibatihi kal aidi fi qayihi dafa yaa ci may ci maye dara jëlaat ka la ko doon wax waaye jël responsabilité teg ko ci loxo nit yàqagul nga dindiwaat ko ngir sa bakkan ca la bokk mu ne ma gàmmu ga jot na le trente la yaa ko daan def ma jóg diju ni ko waaw kon léegi nii ngay def da ngay jël avion nga ànd ak xale yi dem jiitu ji ma ca su ma wéree fekk si leen mu ni ma loolu mënul nekk du ma ànd ak yow nga feebar hospitalisé ma naan la maa ngi ñibbi soo jógee dab ma boo fi doon tëdd at it ma toog Italie at mat na xam du pour moom pour ñun la laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab yàlla du historien te nettali nan li xewoon démb dafa bëgg nu xamee ci bal leen ma tuuti xaj Mansour jërëjëf xam nga lu ma lay gërëmee fa tabarakallahu mbay ñaari junne yi taxul ma gërëm la li ma la gërëmee mooy jab ñaari junni mu ni maa ko def ci rasulullah la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne ñaari junni yi moom xaw ma yan waaye duma ko maye duma ko saraxi dama koy denc ci sama poche ñu jëndal ma ci supp ndax xam ngeen ni ko ñu opéré supp baax na ci na ñëpp gëmm ma denc ko te bu ko kenn toppandoo nag mu waay Abdou Aziz Mbaye kat ne wax naa wax mu të nee na da koy toppandoo moo ci def ñaari junni nijaayam daaw góor wax naa wax mu të nee na moo ci def ñaari junni Mansour nee na day toppandoo moo ci def junni xam ngeen ni jàll mbay du jàmbur jàll mbay ku mën a tooñ la sarax ma ba pare keneen sarax ma mu beddi kooka naan ma kookaa la sarax sama soxna bu ma saraxee sañ na ko ndeela sama ndeela ok ma yeggalee dugg ci gàmm gi Seydi Aboubacar ni ma lu ne mën naa ko sof ànd ak yow nga feebar tëdd ma naan la maa ngi lay jiitu ji boo jógee daf si ma boo doon am at ci hôpital ci Italie ma toog at di la xaar Abdoul Aziz Mbaye mi ku baax la mook nijaayam ji daaw boobu ñu ànd ñëw seet si ma mën leen Seydi Aboubacar di dikk na fi waxtaan ak man nee na gàmm yi ñu war a def programme yi yegg si na léegi nag dama ko néewoon mu ànd ak yéen dem nee na mënul loolu léegi nag li ma xalaat moo di alxaaji daaw góor ak Abdoul Aziz dem Sénégal jiitu junni comme sëriñ bi nee na du dem mukk te jóguma su ngeen demee nekk sunu naayib ca loola daaw góor yegg wax ko ko mu ne waaw loolu da mën naa ne ñu ñëw jiitu si ñu Seydi Aboubacar toog di ma xaar ma génn hôpital samedi dimanche lundi mu ànd ak man ñëw ba bugg a téléphoné sama waa kër pour ñu jël si ma mu ni ma bu ko def mukk bala maa teqali ko yow nga dugg sa nekk Seydi Aboubacar moo am ngor moo baax moo yiw bi ñu yegg sama kër daf ñu ma toogal ci oto bi ma toog ci oto bi mu dugg fëgg sama njaboot génn sama soxna génn mu ni ko Habib da dañu àndoon tukki ci mission diine yàlla dab ko nangu lam doon liggéey damm tànk faj nañ ko nag ba mi ngi nii di soox delloosi naa ko toppatoo nag la laaj dénk naa la ko maa ngi dem kii da xam nga ni lu mu am alaxira dana ko bokk ak yow am nit yaakaar ko ci wàllu yàlla soxla gisoo ko feebar gisoo ko muy añ di la nëbbu ni la daanu bokk dëkkaal jàll ëllëg demal jaamu yàlla te wàcc ko fa loolu wóoru wóoru loolu wóoru ci waawan gii la dëkk góor gu baax gële ci jàllaabiya ca manto ya ca kaala ga ca mbaxane màkka ma ñu daan ko wax sayyidul qawme ko meññ kon lu ma koy wax fii laa ko koy waxee maa ngi koy gërëm bu baax si Demba di gërëm nag magam yi ak rakkam yi Serigne Abdoul Aziz Sy Junior Seydi El Hadji Malick Maodo Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak mbooleem njaboot Cheikh El Hadji Malick ba ci jigéen ñi ñu ndaw ñi maa ngi leen di gërëm di leen nuyu sëñ Abdou dikkati nga de mbiri àddina mbiri àddina li muy bari bari ñetti mbir képp la mat nañoo xàmmee te ràññee leen te bañ leen a jaawale ñett rek la ëpp ko de te su ma ko limee ba pare ku gis beneen bul bàyyi ba ma dem andil ma nga gis laa ni li muy bari bari ñett la ëpp ko yeesu ko te bu ma ci noppee ku gis beneen bul xaar ba ma ñibbi andil ba nga gis mbir mi nga moom mi nga bokk ak ñépp mi sa yoon nekkul mbir mi nga moom mooy sa faratay jëmm mooy fardul ayn julli kenn mënu koo defal kenn faratay jëmm la azaka ci sa alal bu ko keneen génnee ci alalam te mayu la ko wérul asaka yi boppam sa alal rek nga mën a natt nisaab ba génne asaka ja muy asaka woor nag mën nañ koo defal nit ci ay condition ki amee boru koor bu ko dal ci weeru koor mu faatu ña koy doon daañu ko wooral boru koor ba yor ci yàlla muhammad dafa wax ni man maata wa alayhi daynu sawmin sama an waliyuhu ku génn àddina bàyyi boru koor ña lay ña lay doon di séddoo sa miraas daañu la wooral bor ba su dee trente jours ñuy ñetti nit ku ne woor dix jours wér na bu ko ñaar ña wooree kenn ka des wér na bu ko kenn ko wooree ñaar ña des wér na waaye li wér mooy ña lay doon daañu la ko wooral bu doon julli nag kenn du la ko fayal bu doon julli kenn du la ko fayal dala dul wàcc da nga koy def te na nga ko mëne salli qaa'iman jullil taxaw ndem mën ngaa taxaw tegtal ba way wa quumu lillahi qaanitiin yàlla nee na ci alquran bu ngeen ma dee topp taxaw leen booba julli lañu wax kon jullil taxaw soo ko mënul taxawal wéeru ci dara soo ko mënul toogal julli soo ko mënul toogal wéeru soo ko mënul tëddee sa wetu ndeyjoor soo ko mënul jaaxaanal soo ko mënul junjal ku mënatul junj dee moo tax ba ma nekkee réanimation Abdou Aziz Mbaye mii sëpp ma di jàng sulamul murit ma xippi ni médecin bi ban bés laa nekk mu ni ma altine ma ne ko kañ laa fi ñëwoon mu ni ma yaa ngi fi ñëwoon ajjuma ma ne ko ci ban heure mu ni ma ci booru sept heures ma ne ko kon jullik geewu geewu ajjuma ak julli julli samedi yëpp ak julli dimanche ak julli altine war na ma bala nga maa jox ruy bi xaaral ma fay ko kabbar julli julli julli ba julli ya mat ndeke loolu jeexital na ci médecin bi mu faj ma ba may ñibbi mu indi valeur quatre millions lire ci garab ni maa ko ko may muy un million trois cent mille ci CFA biraan si ni ko wax lu tax nga may ko lii lépp mu ne ko man chrétien la du ma musulman mais kii xam naa ne li mu gëm sérieux na ci parce que dafa jóge ci comment laaj li mu war a def julli ko kon julli mooy li nga moomal sa bopp li nga togg la kenn du la ko defal kooku mooy li nga moom dëgg la li la war sa diggante ak say bokk kenn du la ko defal li la war sa diggante ak sa soxna ak sa njaboot kenn du la ko defal kon mi nga moom taxaw ci te bu ci xaar kenn ma jàll ci ñaareel doxalal
leer na de li nga bokk ak nit ñi bul baadoo la gàddu ko yow kenn
bokk la koy def de lu ñëpp bokk dañ koy weer ci pénc mi ku ne jël ci la nga moom te gërëm comme ku seqal lu ne nañ ko bàyyi palaasam lu ñëpp bëgg ku ko génnee ci pénc ma ku taxaw ni may leen ma ci tooñatul xam ngeen lu ma bëgg a wax jigéen ñi nañu sàngu ji sàngu gu jot yére yaa ngi gën a bare ñoo ngi gën a rafle garab yaa ngi gën a bare ñoo ngi gën a feebar xam-xam a ngi gën a bare ñoo ngi gën a réer war na noo seet lu ko def war nañoo seet lu ko def de yére yaa ngi gën a bare ñoo ngi gën a rafle l'islam dafa rëdd nan la jigéen di solo dañu laaj benn boroom xam-xam ni ko solug jigéen ci l'islam nan la mu ne ñaari baat la la yasifu ak la yashifu la yasifu la yashifu solub jigéen ci lislaam bu soloo ba dem romb la nga xam nu taay ba toll col ga baaxul ah xat na eh
jigéen ju sol romb la nga xam di gën a dafa xiit wala déet baaxul yéen
te a ngi dégg man li des ci sama dund amatuma kersa ku dul yàlla li des ci sama dund amatuma kersa ku dul yàlla naxante bi metti na coono bi bari na li ñu nuy dig te amuñu ko bari na aljanna kër la bu ñëpp sopp bëgg ko am ñu koy dig nit ñi ba naan leen jox leen ma luyaas fii te ki la naan dinaa la yóbbu aljanna boo ko ne fu àjjana féete xamu ko yàlla mii buur nañ ko jaamu ji te wéetal ko walwaxidu zaatan walwaxidu sifaatin walwaxidu asmaan walwaxidu afaalan allahu akbaru man siwaahu wa azamu wa aazu minhu wa minhu aydan akram allahu akbar laa kabira siwaaw jallat mahaamiduhu wa azza sanaahu allahu akbaru yàlla dong nga màgg laa kabira amul lu rëy wala lu kawe siwaahu lu dul yàlla
jallat mahaamiduhu wa azza sanaahu jallat màgg na te kawe te yëkkatiku maxaamiduhu xeeti cant yam yeyoo wa azza tedd na te kawe na sanaahu ak yëkkatikoom
هل عبادي لسنا عرفاني xam nga nu may def xam nga nu may def gardeel ma ko tuuti ma yeggale ñett yi baal ma rek تفضل ما اهتدوا لسنا
waaw commencé gu jërëjëf Abdou dégg nga de jigéen ci lislaam bu solo romb la waruloo xam nu taay ba toll laa yashifu ñaareel bi jigéen ci lislaam bu solo romb la waruloo xam nu couleur yaram wa mel waaye sol romb la mu yaraax ngay séen ba yaraax baaxul de laa yasifu laa yashifu jigéen ñi nañu soluwaat ku bëgg a jur ku ñuy rang ëllëg di ko summi li dal la sa awra du nekk ci bitti ku bëgg a jur ku ñuy summi li dal di ko rang ëllëg sa awra waru la nekk ci bitti te ndaw laa danaa ko def su paase paase na wóorul jur kilifa muy mu kàllaf ëllëg mu daagu ñu naan yaaya ma fi defoon nangam mën caa teg baaraam kuy ndaw ku ne ku jigéen war nga ko invité waaw kuy ndaw ku ne war nga ko invité war nga ko invité maa ngi jàll li nga bokk ak ñëpp mooy àqi dëkkandoo xamuloo ni mbaadoo la mi ngi yem ci tifli ci mbedd mi waaye solu topp ci yow bale tiflit ya yent yàlla muhammad dafa wax ne albusaaqu fi tariqi xatiatun wa kafaratuha dafnuha ne na tifli ci mbedd ñaaw téef la ñu ne ko ñaaw téef ga lu koy far mu ne waqi ba mu xóot nga suul ko da ngaa war a ni nii sa dàll ba mu ba mu xóot nga ne ca tëf suul maa sale dem mbedd mi yàgg ñëpp a ko bopp te bare na feebar bu dal nit ci poussière te waaye tifli ca mbedd ba yor feebar ba poussière ba ñëw këpp ca tiflit wa nga romb fa poussière ba dugg la tubaab yi wax nañ ni tuberculose noonu lañ koy wàllante te lii ba ko njool màkk jàngale kenn xamul kañ la woon teen bi yàgg ñëpp a ko bokk robinet bi yàgg ñëpp a ko bokk lamp yi ci mbedd mi yàgg ñëpp a ko bokk kon bu fi tuur mbalit bu fi tuur ndox an nadafatu min al iman njool màkk ne set ci gëm yàlla la bokk kon li nga bokk ak ñëpp bu ko ni fankul dem ku yanu loo bokk ak ñëpp boo ko wannee fop boo ko demee ñu dab la ma ñëw ci ñetteel bi li sa yoon nekkul xam nga noo ciy def jox ko gannaaw te bul geesu góor gu baax gi tëdd fii ci Tiwaawan ma di ko tudde ñàkk sikk si Seydil Xaaji Malick si nee na départ agunu ba léegi waaw maa ko tudde ñàkk sikk si moog yi mënul ñàkk ñoo bokk sant yooyum doon
asamaan si suuf si suukar si xorom si farma si soxna si xaalisu Gàmbi dala si Seydil Xaaji Malick si جنب برينا لا إله إلا جميل بك الروان ضم نمر شيخ تيجا جنب برينا لا إله جميل بك الروان بايون شيخ بايون دباخ مالك الحاج مالك جنب برينا لا إله جميل بك الروان دون نظر شيخ تجاه الحاج مالك بينا لا العجب الله بامسك الأول دون نظر بايو دباخ مالك الحاج مالك جنب بينا لا العجب سكر الأول دون نظر شيخ تجاه أجمل جنب برينا ليل ديمين فرول ضم نمر شيخ تجان لربلا بتبقت قينا هداية الفمام وخيرا دقيقا وأتصلى على جمال جنب برينا ليل ديمين ذكر لوال دون نمر شيخ رجا يوتيوب لنا جدو سلام نيانا راجع سلام داغور بنا أحمد باي مانغو وسبحان الله مالك يا مبرنا لا لا جديري فكر لوال دون نمر شيخ رجا ودي الله مالك دون شيخ جان شريف بس مودني دلنا بمر كاي ولو ما برنا شيطان يا مالك يا مبرينا لا اله الا ديرين كما ردنا مرسي يا Yusuf Jóob raw na gaañi Yusuf lañu dénkoon paat paat ñangu ma feeru ba tey bay borom naa jërëjëf Moo doo defar jërëjëf musaale
jërëjëf Mamadou Malick yaa defar musaale ba mu baax lool
ba tax njabootam am ñu leen xëy faale skay skay Habibu baal ma Mamadou Malick yaa defar musaale ba tax njabootam am ñu leen xëy faale déglu déglu nga ne lan
ma Maodo Malick yaa defar musaale ba tax njabootam am ñu leen xëyfaale xasida bi am na neneen nu ma ko gisee nga dem maam Maodo yaa defar Moussa Ali loo ci teg ba tax njabootam am ñu leen xëyfaale ba tax njabootam tey ñépp a leen faale bu dee ñu leen ma Maodo Malick yaa defar musaale waa kay.
ba tax njabootam ñëpp leen daal faale ba tax njabootam tey ba tax njabootam tey ñépp a leen faale ñëpp leen faale alhamdulilahi nu sant kiy dogal eh wuy daaya jaa jóg laahu buur bi xëy dogal skay
xadasallahu ruuxahu bay abdu ala jiwaari mustafa kii ahmadu skay
na ngeen ma jéggal man mi jóg tey jii di wax skay
ku mumtali araab aw turam warul di wax skay
yàlla yabal malaaka mawti xëy si skay Eh, nam xëyoon ahmadu xayru naasi Mansour xasida bi damaa def duñ ci wàccoo jaaraam Baye Abdoul Aziz ku wax ci moom fii balay sori nga yàq gàmmu gi kooku xol yépp moo ci goor may ma rek may ma may ma may ma may ma may ma jërëjëf jërëjëf Idrissa jërëjëf Idrissa jërëjëf jërëjëf waaw المال كل الوالي الله ربهم
محمد رئيس مالك رضي الله تعالى عنه وارضانا به آمين
كان عجيبا فقيها عالما ورعا من يمنع ينجس القمع لمباركا لما سمعنا بأصوات مقيمة لوحما في بواق وجسمنا يلا من Aliou Mansour Cheikh Hadj Abdoulaye nelawee naa def ci sama poche maa ngi wax ak nit ñi léeg-léeg bu dégg ci laa wax ni lamma sami'ana bi aswaatin mubayyinatin ñuy wax ni moo fi baroo koo gis mu naan nga lamal xammaanu kallil wara lillahi rabbihimi doo gis bu mel ni ki moom du fi bëreeru lamal doo gis ku mel ni ki moom du fi dareer yaman doo gis ku mel ni ki moom du fi dareer yaman du fi ku mel ni ki moom
way abdu do gis ku mel ni ki moom du fi dareer yaman doo gis ku mel ni ki moom du fi bare yaman doo gis ku mel ni ki moom du fi bare yaman doo gis ku mel ni
ملك مام رب يمن درجس ملك مام
wax na fi taaxi baax yoo xam ni dem di jabal tabax na